jariñu Jackson arbitre sifflé na génn na ñoom ñaar seen dem nañ ba ca wetu saaku ya ñoom ñaar ña nga fa taxaw arbitre baa ngay daw di leen xool ñàkk jariñu Jackson ñàkk mooy borom feer yi borom feer yi noir yi ndeysaan buy ñëw Jackson ñàkk jariñu Jackson saan ñàkk jariñu Jackson ñax nag bi mu fi mujj moog Alioune Seye la woon combat bi amul. combat ba ñu dooree woon Alioune Seye. waaw ko tag waaw Alioune Seye seen ko duma woon duma yu metti yi moom Alioune Seye duma yu metti la ko la ko bi duma woon. ndeysaan keroog lii daanaka boobu la arène bi di doog a ay fan noonu. ndax soo xoolee ñax moo bàyyeekoo Caaroy. bàyyeekoo waaye kii di Jackson. moo bàyyi ko Géejawaay bàyyi ko buun amarante super topp ko super super waalo waalo topp ko waaye Jackson day bëre koo xam ne mag la si làmb jiitu ko si làmb. ñàkk jël na ko eh, bañ na ñàkk ngi xeex mu ngay Jackson ngay xeex. Jackson eh Jackson Jackson eh, eh, na ko dàq na ko. dàq na ko jël na ko jël na bañ na. Jackson. Jackson ngay door. mu ngay door Jackson ñàkk jëriñu. mu ngay door Jackson ñàkk jëriñu. Jackson ñàkk xeex xanaa kii daa mere ñàkk jëriñu. xeex jox maa joor jokkal leen. waay waay am njaay joxal jóob. am njaay joxal jóob. laa ilaa ñaq mi doon na de. ñaq dëgër na. xameewul jant ak jóor. waaw xanaa Jackson daa mere ñaq jëriñu ndax Alioune Seye si ñor. xam naa da kaa mere. <laughs> Alioune Seye Junior a tax mu mere ko. suñu papa Zallo gi noonu si ginnaaw. ñàkk jëriñu dem na Ardo Ardo may ko soow. waaye fee de alcool lay may alcool. Ardo may ko soow. at dëkkee. Ardo may ko meew. at bétadine. Ardo. Ardo. Khalil xam na Ardo. Khalil xam na Ardo. waaye ñoo ngi masawu suñu benn confrère. Lamine bu Medina TV. di ko masawu dégg naa daa def soog bi muy ñëw stade. mu ñëw stade waaye Jackson gis ngeen li mu indi ci stade waaye xoolal ñax la mu indi ci stade non moom ardo kii la koy may bétadine. ardo may ko meew. non non fay la may. ay waay ardo. at huitaine. ak coton. est-ce que xam nga ne ñoom ñaar seen xeex bi tàng na jë. kii Jokko maa joor Jokko leen. waaye di nuyu waa Wasaare Lamb. waaw nuyu ma waa Wasaare yi des nag. Wasaare Lamb laa nuyu. waaye maa ngi nuyu waa Géejawaay Géejawaay Wasaare. waaw am na ñaar ñaari xale jigéen yu ma nekk. maa la ko. la ñuy def moom duma ko wax. taamu nañ ko waa wasaare noonu la ñuy def. ñu jigéen ñi dañuy nekk ak liy waate. en tout cas fi mu toll nii wasaare tey na bës bi. waaye ku wér lay laaj ñàkk jëriñu booy bawal. Eh. tey ki di yaay laa mu Jackson am na avertissement. Jackson ñoom ñaar ku ne am ñaar ku nekk am nga avertissement ñàkk de Jackson benn. waaw ñu ngi dem national ñoom ñaar. ñoom ñaar ñu delluwaat nañ ca saako ya. saako ya fekk ñu kenn. ku fa dem yaa ko fa fekk. ku fa dem yaa ko yóbbu sa bopp waaw yi lu ñuy daw. arbitre yi est-ce que nekkul dañuy wooy. li ñu def nii c'est sàmboori la c'est sàmboori. ñoom ñoo koy wërante di daw. jag sonn ñàkk jariñ waaye Ibrahima nee naa leen ñàkk eh, eh, Jackson daa mere ñàkk jariñu ndax la mu defoon Alioune Seye Junior eh eh eh, eh dalay daan dalay daan la ilaha illallah incroyable chute eh lii amul lii amul du dëgg la ilaha illallah xool leen nañu joxe kaaraange kaaraange nañu xool nañu xool. ah na. Jackson daan daan jël ba rëy. da door tànk. door tànk mu dem. mu wëlbati ko xoolal ma supporter yi xoolal leen ma leen xoolal ma lii. mbir